Wagwan God bless people, you know what time it is in Hamgen Nakala. Well, uh, Fulol mean Seleta and Fulol mean Jita, 99% of the population don't know that. But Nalekoa in this video, well fight bi bari na wax bi bari na tamit si kaw koo xam ne mi ngi yaga nopi almost one year bi yep mi ngi collab ak nit yi but mi ngi bay gaay ci biir di toogal gaay whilst gaay ñu ko throw shots wax bi bari na wax bi over bari sa mi ngi noppi rek di mind business am but message yu mu si biir song bi nii dañ over bëri and I do my best pour gawalantu ko if you haven't subscribed yet hit the subscription button and press the notification bell so that you don't miss any of our entertainment feeds well alright then yes wax bi dafa yaaga bëri asitale basically dafa enu lu bari it's like just nga jël a bunch of whole other stuff nga def ko si benn bag loolu la ST def ni like lu mu jot a dajale ak bi yëpp la bayal gaay si benn song ñoom yëpp mu boole gaay si benn mbuus pakete gaay and this is mind blowing ok anyways xam ngeen ne he di the goal and fu mu dee fële foofu du dee seeda that's right abantale bang fu batro man bang bang abantale yéen a ma gën a xam naka la City bi dafa yaaga xanaa lokoti ko jotut jot na well say mu leen a wax ne comme like lum mu jotoon a paak pour yéen wala xaar bi yëpp boo leen doon xaar léegi jot na léegi affaire bi mi ngi nii won na leen ko and then mi ngi wanee ne comme like yow am back maa fi nekkoon waaye maa fi gën a nekkaat with another new style and this could even be ne I'm gonna respond to anybody koo xam ne dis next year Come to ko bàyyi mu well xam he was busy giving other artists collaborations yéen a maa fii def I can see almost 12 artists la jox ay collaborations and every one of them is a hit video B is really nice and extremely interesting so basically xam ngeen ne dëkk bi yëpp ñu doon ST pour mu wala pour mu make a move because he was receiving such such and such man sa génna si naa woon I did a video ma ne ok ST dafa war a génna si mu wax because they have been throwing shots on him nekkete moom he got his own agenda so moom la gaa doon xaar pour mu wax but am na own agenda am so mu ne wax waxi yëpp du tax mu wax de yes and seen hits si seen beef songs si and seen yi yëpp loolu yëpp taxut mu wax mi ngi noppi which he did Mingi Owen Anobi, since the beginning bedtime video. He is really smart and strategy boom they use is really really really awesome. So leen bàyyi seen xel moom ak attaque seen strategy dafa xaw a niroo which means ne soo naree analyse everything from the top to the bottom di nga understand ne comme like attaque rek moo nekka the only brave artist boo xam ne is following ST. Not about mel ne naka moom da ba téye box bu mag. mu def ko box bu ndaw ah ok moom mun naa téye place bu mag comme Gambia seen place bu gën a mag def ko box bu ndaw so mi ngi nii di bost the goat himself mi ngi bost ne mi ne daf dee def box bu mag mu toon ko daf dee jël box bu mag mu toon ko into a small box yeah daf dee jël box bu mag mu def ko box bu ndaw now he is showing his might in the gam music scene so basically mi ne naka QCT is too small for him yéen a maa fiil and lii tamit mu maa yóbbu foo xam suma na so QCT is small for him meaning March 2nd he might go for the stadium again because boka na si no xam ne ñoo fa up and oh my god it seems like the history is gonna repeat itself ST is very smart and this makes him very dangerous because ni mu lay xalaatee soo naree check records yi rek he's way too far loolu laa mën a wax fii right now ok léegi am guessing ne tamit maybe next concert am bi which is gonna be March second dafa nekk si stade bi and he is gonna prove it again oh no you have to watch out this is something else xaw ma na yéen a ngi koy yéen a hint yu mu leen nekk di jox because si biir song bi dafa laal ñoom ñëpp dinañ aga si paat boobu dinañ fa aga basically bi ne naka moom mun naa tuuti loo QCD comme Dalaba seen Dalaba Estate seen salve and wow wow and that is true he got the crowd he got the supporters he got the followers and loolu yëpp is true he is the good so fu mu ootee dafa dafa jax nit yi dégg comme uh, ansa to his calling moo tax ma ne ne ST dafa wise dégg ngeen mu ne naka dafa tuuti loo Q City comme Saly Dalba Estate bi which means moom nekkul di udalee Q City la muy demaate mu break record again and most of you don't see this moo tax ma jël suma time pour mun a decipher lii very well ñëpp ñu no xaar pour mu wax yes wax wax bi yëpp tawul moom mu wax and next time next li tamit mun naa jël box bu mag def ko box bu ndaw moo nekk jël QCity def ko comme saali Dalaba state bi pour gaawalantu ko rek nga understand ay te nekku di taal QCity wala pour gars yëpp nekk di utali moom ngay xalaat fan fële le start pour mun a break another record again wala tamit mu ne dafa tuuti loo QCity dafaa tuuti loo QCity ba mu gën a tuuti ah, Dalaba state wala mu mel dalam Dalaba Estate seen Salve because people who gonna who are gonna pack up in there when he calls Mene mo moom bopam. the reason is mun naa So boppam su gisee ñeneen yi rubbish I stuff your hamne si mom. and this part here I'm guessing ne this small smoke mom wala ak Bro ke. Ada leen koo lera and ñeen tamit ngeen wax ma loolu because I took a lot of time for muna decipher this Yes, so shout outs to my team out there. so mu ne pour mu respond tiis moos dafa mel ni yabaate la si moom mu ne suy tontu dafa mel ni santa bu santa Kujabi and uh, this is a simile alright so waa Kujabi bu leen mer fële this is a simile so waa Kujabi bu leen bu leen mer dégg nga <laughs> so foofu la. mu ne moom gis na ne enemies yaa ngi bari si kawam and this is very true. guy بكون Pumu prosper they want him to fall off ولا mu drop from the top from neka or mu dead off wala mu down totally severe music industry motor fights they are still on but come maleko on last time it's not easy to be a number one or numero zero you're gonna get hits from up down left right center yep fight with the neka so it's not easy to be on top next the minute guy dem bugga mu dee so that the elders the women the ladies and so on pour ñooñu mun a ñëw si dëjam this is something else this guy like ST ST is extremely good gis naa ne many people are saying bad stuff towards him wala ñu bari ñu ngi wax lu bon si moom alright so moom ki awut mbiri loolu comme loolu move wut ko you know what mean and loolu dëgg la yéen xam ngeen ñan ak ñan la alright so leen seen xeel di nga cëppane comme like these malls mi ngee throw ay shots towards ST and so leen seen xeel tamit di nga xam ne moom moo gën a nekk di throw ay shots yes so this part here this verse here it goes to these malls straight up ST mi ne naka ñaar dem na and yeneen ñaar wàcca na this is something else. And Lee, come about 95% of the audience or oh, moon decipher fini because it is well coded. So then they get this said subliminally CB industry you're gonna find out I'm like nyari artist no joke this year and kanla uche joke na si kaw bim akan muzen dala joke na bim level bi dafa overjook and soo seetee ñoom ñaari yëpp loxoom mu fa si gaay seen carrière am na collaboration ak seen Dada at bii nii te nekk nañ ci events yu bari gaay job nañ lu bari at bii nii and nga nara a seet tamit Uche te am nañ fa collaboration boo xam ne it might be the best collaboration of the year and tamit nga demaan between Uche ak seen Dada ñoom ñaar yooyu noonu am nañ song boo xam ne tamit dinañ ko recommend as best collabo of the year mooy international localo xoolal lii triangle la def nii so yaa ngee cappa noonu moom loxoyam jaar na si and su tegee collaboration daf day nekk a hit which means dafay def everything lu mu gàtt so that the fans can be like yow and loolu is applause for the other guy so lii noonu la fa war a demee noonu la ñaari si kaw ñoo jóg moo nekk Ousainou Darboe ak Uche and which is gonna lead me to my next best album of the year video bi nga ñëw soon and I'm going to be very controversial I like that and ñaar ñu wàcca nag mooy ñan ñaar ñu wàccay ñu daanuy moo nekk kan attaque la ak Jizzle <laughs> but here dafa nekk a little bit controversial yes ñu bari foog nañ ne comme like ah ok moom mi ne ñaar ñu daanu yi am na ñaar ñu daanu and am here to decipher them now it's up to you to be the judges ok attack down Jizuo down so yaa ngi topp soo naree xool ba xoolaat nga seegaat thing bi you're gonna find out ne he is not in good terms with attack and attack is the only artist boo xam ne moo nekk di throw shots comme Ali last year ba year bi jeex woon yëpp moo nekkoon di tëgg ay shots ba industry bi yëpp jax towards ST and right now tamit mun naa wax Messi ay project I can say because mi ngi noppi and uh, maybe the good consider that as a down oh say mi ngi I I don't know tamit maybe tamit num célébrité ak Maam Jaara tam loolu daf ko week because gis na ne dafa broke Vitamin and amna na mbiri and stuff ba dem ay police argue. You know, nekk na sa ay tolof yes that one is obvious <laughs> it is really obvious many people are saying diesel is down alright and société bi seet Uche Uche moo nekk di mel ni kuy fay diesel xaw ma yéen a ko bàyyi xel although diesel mi ngi dem international and stuff but société si vibes yi bi doon Uche ak diesel di nga cappa ne nga bàyyi sa xel nga study music bu baax di nga cappa kan kan moo gën a nekk di job yéen maa fiil so nga nar a cegaat di nga cross reference ko Uche ak diesel they are not cool like before nu fa dee demee because story bi dafa over oh, good kon yes so dama leen ko jox cax cax di da understand <laughs> okay? but ñeneen ni tamit ñu nekk si gënaawam moy ñan si vas boobu noonu I'm gonna mention everything here. Fulol mimma luring koma. nekk kan T Smalls and Killer Ace. So let's say ba but wala sa mun na dugal broke tuuti waaye why? ma aj broquet foofu noonu Kila es la ak T-Smalls alright ñom ñoo nek di tru yenen sorti and they are behind him this guy is is <laughs> how ma st <laughs> no no st duy teel a wax boy way su waxe rek ya xala so next one mi mu ne boosoo le min dang comme rawa ñum raw ba pare ñi nga xam ne du mën a jonaat boss bi because boss bi su bougé wala su demee ba fees du mën a about pour ebaat ñeneen alright moo nekk kan moo nekk ñana ñana ñana I'm just gonna give you a hint hint si alright we have oh Bro K YD Junior King and the rest yes why so dem bàyyi seen xel di nga YD tamit ak Bro K they are very tight and ñoom tam si benn mbuus bi nga nekk I'm beginning to decipher ne industry bi ku nekk mu ngi pick party ku nekk mu ngee pick fu moo dem taxaw lii moo nekk di happen si and I'm doing a deep survey on this to bring this to light because ku nekk mu ngee dem choose fu moo taxaw ak ku moo rola ak ku moo lif na ku nekk mu ngee choose part and lii kenn mënu ko nëba my team will do the best pour mun a génnee lii yëpp ñu asi ko yëpp tonight because soo leen bàyyi seen xel di nga jàpp ku nekkam ngeen dem taxaw fii ku nekkam ngeen taxaw fii and partner next year abe duudale ori guy 2024 is gonna be really really really really industry bi dafa interesting so ST dafa respond fii attack and lii dafa laal dafa laal ñoom yëpp dafa omba gaay ñoom yëpp in one bag mu nekk di laal gaay because when I talk people explain you the far over time. So this I can do. That's I took my time with my team out there to shout to them. pour mun a génne loo xam ne dina on ville ah, song bi lu mu nekk di wax but def na fi ay message yu bari nag ba mu wax ne comme dañ ko try pour poison dañ ko poison si while he was in the boot te kooku moromam la woon companion am la like he was his companion moo ko def loolu si biir boot bi jël bi doon naan and then voice am bi dafa change and he was like yow naka la suma voice bi change nii and this is really not nice industry bi dafa bari yëfi muuri yàlla adin korte moo tax ji sa daf ko wax mu ne loolu moo tax ma abal leen seen industry bi industry bi dafa bari ay yooyu yooyu waaye industry bi tuuti bi nii nii daf leen ko jaral loolu loolu alali àdduna ko jaral noonu noonu lu jara bàyyi xel la ba leen di yaxante yi naa miin because kooku talent bu mu am yow doo ko mën a am even kooku su dee <laughs> so yàlla ma ne may ni liggéeyal yow tamit at least yàlla sos la fa yóbbutee nga mun a am yow loo war a am It's quite simple why Holly duñ benn moo tax comme waxoon naa ko last video about Uncle Sam bu living in Ohio, they waxee dañu tax niti They're gonna be very serious in taxing uh, our artists, promoters and even organizers. This is really not nice. So it's the mu ne gaay dañ ko sànni dañ ko defal dara si bitéelam um, si bitéel bi mu naan ko and this is not nice and uh, si si how many how long was it nag but so dem bàyyi seen xel waxoon naa leen ko last living a more mass moo da seen collabo it is really mass and voice and before would dafa change and I was talking about this maybe something is wrong and su waxee live sax da nga ca baatam bi dafa dee ST su toogee di def advert nii da nga ca baatam bi dafa dee dee yes I told people that like there's something wrong yeah am nañu comment ñu ne tamit da nga ko def noonu pour highlight ne emotion bu mu nekk feel la uh, Uh, but thanks for those wonderful comments as well. But I really don't think ne comme um, loolu mooy di di di di loolu moo nekk lu happen like really yes but shout ST and uh, every gam music lover in it yes sa job bi rafet na. and uh, ñu bàyyi di yóbbante ay sëriñ ay stuff loolu taxul nga mun a am kile xam-xam bu mu am in it. loolu yëpp coolul boys I respect ST for this nekku di ñëw di wax wax de jibi aji bu ñu ko interviewé dafa noobi nekku di ko answer yeneen question yi muy aji rek he limited himself and knew what to do or how to control himself yes and loolu dafa over cool yeah loolu is very nice keep na calm although people are talking am na ñeneen ñu ñëw wax wax foofu aji different gaay nii gaay wax wax wax lu koy amee yëpp and lii create na tension ci biir industry yes but st daf dee jël loolu mu def ko si biir son I think the real craft foofu la nekkee artist yi doo dem di waa waa waa waa waaye just take everything and put them in a song and your fans wala nit yi out there they can listen and then be like wow this is it and noonu la fa war a demee